est-ce que le combat nekkul aujourd'hui yéen ngeen jéem a préserver lu nga xamante ne moom moo di euh, foofu nga xamante ne dafay protéger filao yi foofu nga xamante ne géej gi dafa am contact direct ak géej gi. Mhm. ngeen dem yéen ngeen jël seen xaalis ngeen dem jënd bu fekkee ne ngeen ngeen dem jëndi faneen est-ce que loolu gënul woon euh, ki nekk fii nii di discuter ci lu nga xamante ne bon kenn waru fa dëkk. c'est une bonne lay sant di la mais xam naa ne yow xamoo géejawaay. non xam naa géejawaay bu baax non si ma dama lay déglu ba pare. bi wax littoral bi mooy fi nga xamante dañ na cent non waxuma littoral foofu dama lay wax ah, ban de faaw bay nga wax kon bu fekkee nit warta dëkk da ngay commencé jàmmalaay ba géejawaay romb Cambérène foo romb tojal jëlee ko mu dem maanaam foo romb rek daaneel ko jàll dem ñun géejawaay dañoo am problème mu surface fi ñu dëkkee géographiquement géejawaay mënul yokk mhm. benn côté rek mën a yokkee muy géejawaay nii ci mhm. côté bande de filao yi depuis 112 laa dëkk géejawaay tukki 20 ans def Italie fii

yaa a cinq ans si ginnaaw xaw ma six ans. Mhm. boo fa ñëwee dañ fay agressé di fa tuur ay mbalit. Mhm. Mhm. géejawaay ñoo demandé agressé yu bëri fa. waaye géejawaay ñoo demande ne géejawaay ñoo laaj population géejawaay jaarale ko si maire Alioune Sall conseil municipal bi ñoo voté laaj ko soxla ko pour ñu yokk dëkkuwaay tabax fa ay école ak leneen ak leneen si lañ ci génnee tribunal bi deux hectares huit cent. jox ci magistrat fu magistrat mën a dëkkee keneen keneen dëkk tabax population bi kenn jiitu wala ku ma dëkk 1960. te loolu yoon la. waaw si yoon la parce que ni bàyyi na ak géej gi plus de mhm. demal Europe wala nga dem feneen ak feneen. Mhm. espace bu nit war a dëkkee la suuf la soo xamante nii dafa valable pour ay nit dëkk fa. sori na géej sori na géej gi plus de 200 mètres wala 300 mètres kooku dëkkuwaay la ñuy wax dañoo xamul li ñuy wax parce que mënoo jox demal Cambérène kon commencé Cambérène jaar jàmmulaay lépp da koy toj ba dem Malika. mais da ngay da ngay dëkkuwaay la Aline Sall ba ko conseil municipal voté ñu xool conseil municipal jox leen si ay terrain dox si ay état Sénégal moo ko moo ko joxe ah. Mhm. kenn joxe ay état ay technicien ay borom xam-xam ñoo xool jàpp ne fii dëkkuwaay la ñu doon ko tabax bu tribunal jox leen ñooñu ñu jox nag bañ tabax waa tribunal waa ak impôt domaine jox euh, magistrat yi. jox waa jox préfet yi jox ñeneen ak ñeneen jox waa impôt demee noonu la ñu war a jox population géejawaay képp ku fa am mën faa am dañ la ko war a jox am na ay logement municipal yoo xamante war nañ ko faa tabax pour ñi nga xamante dañ faa dëkk am problème mu location te mënuñoo fay li ñu nanguwul mooy ñu jël ko jox koy autorité yoo xamante ni am nañ lépp loolu la ñu nanguwul léegi mm-hmm. ndax da ngeen da ngeen da ragal vu ko le président Macky Sall bi mu fi nekkee euh, newoon na yéen ñi nga xamante ni am ngeen fa ay terrain nañ leen ko jox ndax da ngeen ragal nguur gu bees gi ci ci ci ci situation biñ ci toll gis ngeen euh, mbirum mbirum suuf coowal suuf dafa bari Sénégal ndax da ngeen ragal nguur gu bees gi euh, vraiment nangu la nga xamante ni wala bokk la Macky Sall tegoon mu teg ñu teggi ko. non depuis 1960 ak léegi président bu fi nekk joxe nga ñuy fi nekk di ñuy joxe ñooñu ñu fi nekk tey jii. Hmm. bañ ci tolloo ñu nekkoon syndicat ak sama seen impôt demeen boobu dañ leen jox fi nga dëkk ñoom bu ñu leen ko jox woon du ñu am kon joxe yàgg na ci Sénégal. Hmm. moom sa yëf ragaloo ñu jël ko. donte ñoom ñooy autorité ñoom lañ fi teg ñu leen di gunge si li ñuy wax jub jubal jubanti mais booy jubanti da ngay jubanti ku nga xamante ni dafa jël lu lewul wala lu moomut ñoom bañ leen di jox fan lañ nekkoon impôt demee lañ leen jox si ñoon amul kenn ku miim koo ci wax danaa la sama kër gi ma dëkkoon 2018 wala 2016 état moom ma ko joxoon mm. état boobu nag ba tey mooy continuer nekk fii lu jubut te xam ne jubut ñu ko jël ñoo xam ne ñan la benn nit ñu jox la un hectare te roy woo ko dara nga jël ko ko jaay loolu d'accord nañ ñu jubbanti ko mais au conseil municipal benn benn nit boo xam ne wala association handicapé war a dëkk ñu jox la ko parce que réew mi dafa am yoon ñoom niñ fi nekkee tey suba duñ fiy jóge comme ni président Macky Sall jógee nit ñi ragal luñ nit ñi duñ ay malfaiteur ñëpp duñ ay sàcc dañoo liggéey seen alal daf ko fi d'accord nañ la ñu jubbanti xool saytu demal Malika demal gàddaay nañ ko jox ay nit yu jël seen alal la nekkul na dañoo fekk géej ga dagg ko jël ko ñoom bi ñuy saytu waa impôt domaine yi la ñuy saytu fu ñu dagg ñoom jël nañ fa 5 hectares jël nañ fa 4 mais li ñu njëkk a nekk tappale lu nekk njëkk a nekk dem ci benn gox ñu ne géejawaay 150 hectares la waa impôt domaine jël na jël naa 5 hectares waa cadastre na jël naa 5 hectares te ñoom ñëpp ñoo bokk fi ñuy liggéeyee loolu mooy mafia loolu mooy loolu la ñu war a nangu mm-hmm. delloo ko askanu géejawaay mm-hmm. askanu géejawaay am nañ problème fi ñu dëkk au conseil président Macky Sall xam ne yow amoo kër mun munoo am salaire amoo dara ñu jël la may la terrain kooku jaaduwul wala jaagu na ma gis naa si un benn jeune boo xam Espagne la nekkoon dafa feebar billaahi wallaahi wal kitaab bi dara dama jëkki-jëkk moo ma téléphone jël sama numéro ne ma xam naa damay dee dans six mois duggoon naa si terrain yi mais dama ñaan yàlla sama njaboot am fu mu dëkk muy dem di ñëw pour man day caaxaan jour ba mu terrain yi génne ñu jox ko quatre jours la la si toog dee am yeneen conseil yoo xam jël nañ seen terrain dee bàyyi ko seen njaboot tey seen njaboot yooyu gis naa ñu jaay ko dem tuxu dem feneen kooku jar naa nangu ki jar nangu mooy ngi liggéey ñu jox ko logement indemnité de logement jël ay préfet yoo xamante ni ñi ngi fayeeku jël ñaata préfet li ñu jël jox leen 3 hectares ci Géejawaay loolu mooy yoon magistrat yi boo demee taxaw nañ ba dëkk ñeneen jaay neen seen jëf dem kuy nangu wala kuy jubbanti ñooñu ngay njëkk a jubbanti ñii fi nekk day autorité koo ci laaj keneen ak keneen ñoo ñëpp am nañ foofu ci géej gi biñ parce que tey jàpp nañ nekk nañ ci ay conditions yoo xamante ni. su la neexee dem jëndi mbal xaw ma Amérique wala feneen ak feneen bu la neexee jënd nekk ni na leen ko. Mhm. bañ leen koy jox mënoon nañ koo delloo. parce que boobu bu ñu fekk na jaaduwul boobu delloo seen alal delloo ko na leen soxlawuñ ko mais doo jël ba tey nga am foo nekk nekk si nguur fu la neex jënd si àdduna bi naan da nga koy delloo wala da ngay seet loolu teguwul si yoon. Mhm. ña seet moo ñuy sàcc. bon xam nga lu ma bëggoon wax. Mhm. moom mooy bon